أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حينا على الله رب العالمين وسعيد دينا على محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول اللهم رب العزيز من الله صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi suñu xutba tey mooy asbaabu intisar alqarabin albashariya mooy sabab lan mooy sabab ci tasaaroo bi nga xam ne tasaaroo na ko xale yi ñuy rey lan mooy sabab bi foo tourné ci biir dëkk bi ñu ngi sàcc ay xale di sàcc ay jigéen di sulli ay néew di jël cëru doomu aadama yi di ko dagg di ko yóbbu lan mooy sabab bi juróom benn mbir kese mooy sabab xale yi ñuy sàcc di leen rey ak di leen daggate juróom benn mbir kese la yooyu ba ca jiitu mooy intisaa inti intisaaru sihr wa sahara fil bilad mooy njabar gu tasaaroo ak ay njabarkat yu tasaaroo dëkk bi foo tourné ñëpp ay njabar góor ñi dañuy njabar jigéen ñi njabar mag ñi njabar xale yi njabar njabarkat yi tasaaroo ci biir dëkk beeg biti dëkk bi foo tourné nit ñaa ngi rang ci buntu kër njabarkat yi lan moo tax njabar tasaaroo sabab bi njëkk mooy aljahl réer ku réer rek mooy dem ci njabarkat ku réer ku gëmul yàlla dub jullit même bu jullee même bu wooree yëgul ne moom génn na ci lislaam loolu réer rek moo koy waral ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ki génn këram jëm ci njabarkat 40 jours bu jullee yàlla du ko nangu ku génn këram rek maa ngi dem ci njabarkat bi ci gisaanekat bi ci seetkat bi 40 jours soo jullee yàlla du ko nangu boobu yaa ngi dem yeggagoo soo demee ba nga yegg nga toog mu wax nga gëm ko yow génn nga ci lislaam man ata arrafan aw kaahinan fa saddaqahu fi ma yaqul yonent bi nee na kooku faqat kafara bi ma unzila ala muhammad waaw loolu lu ko waral mooy réer kon ku réer mooy dem ci njabarkat tomb bu njëkk bi tax njabar tasaaroo njabarkat yi tasaaroo mooy réer ñaareel bi mooy doful iman ku gëmul yàlla dong mooy dem ci njabarkat moo tax ñu naan ko indil xale sàccal xale defal nii mu dem di ko def looloo tax du hasard ñi ngeen di gis nii ñuy sàcc xale yi di yóbbu lu tax ñu ciblé xale yi lu tax ñu ciblé puune yi lu tax ñu ciblé tungune yi mooy njabarkat yi ñoo leen di wax ne xale bu am trois ans ba sept ans moom ngay indi deretam wala nga indi xolam wala nga indi nangamam su fekkente ne ku bëgg kàddoom yëkkatiku fu mu wax ñu dégg ko laa mi ñu xale lay joxe su fekkee ku bëgg nit ñi topp ko kooku xoolu xaj lay joxe su fekkee ku bëgg ay mbooloo ñi ne tekk nga leen di wamma di leen yóbbu ñu laaj la xolu néew maanaam dëkke du hasard te ñaar dong ñoo ko fi def ñaar kese la te mooy sunu kilifa yi kilifa diine ak kilifa adduna kilifa diine yi ay taalibe lañ bëgg njabar leen duñu xam fu ñu leen jëme ñu leen di jëfandikoo kilifa adduna yi mbooloo lañ bëgg ku leen fal ñi kese ñoo tax njabarkat yi tasaaroo ñaar ñi kese la bu kenn ragal ne kenn politiciens yi ak sëriñ si la ndax ñoom ñoo bëgg taalibe yi ñooy sulli lu néew yi di jël seeni xol ak politiciens yi ñooy jël ay gàllaaj di ko def ci gémmiñu néew yi ñu ne néew bi ni mu noppee noonu la ñuy noppee ci say dossier ñoo la gën a xam mbir mi fan la bëgg a sonal nit ñi fii léegi nag sacrifice lañ leen laaj au lieu ñu jël seeni doom dañuy dem jël doomu jàmbur yi toog ci buntu école yi nekk ci mbedd yi yor seeni oto teintre vitrine yi ah teintre vitrine yi kenn du xam ñu nekk ci biir ñuy sàcc doomu jàmbur yóbbu di leen sacrifier di leen rey yaakaar ne ëllëg du ñu taxaw ci kanamu borom bi ala yazunnu ulaik annahum mabuusun li yawmin azim yawma yaqumu nnaasu li rabbil alamin wallahi amal mbooloo wallahi amal ay taalibe wallahi falul fukki junniyaat yàgg-yàgg danañ la suur biir bàmmeel walaw ista alfa amin wa alfayni baadahu fala budda yowman tadxulu lqabr te boo duggee bàmmeel li nga xam ne li nga doon def waroo ko woon def mbokki julit yi ñaareel bi ci li waral ñuy njabar tasaaroo njabarkat yi tasaaroo mooy dooful iman nit ñi amuñu benn gëm ngëm yàlla gi yépp ci làmmiñ yi la nekk iman bu yaafuse iman bu yambare doomu aadama boobu luñ ko wax mu def ko mu def ko ku ko laaj nit mu dem uti ko ku ko ne joxeel sa wayjur sax mu joxe ko ku ko ne joxeel sa soxna mu joxe ko ku ko ne joxeel sa doom mu joxe ko da ngay dem ci kër fekk jigéen bi dafa yeew borom kër gi ba borom kër gi du sëqat benn gardien bu doon garde benn kër nettali na ma ne benn professeur ci docteur yi mag yi nekk Sénégal dafa tukki dem France jabaram indi njabarkat ci biir kër gi moom gardien bi la ñu yónni mu dem marché jënd ginaar ñu ñëw ñu njabar ginaar gi sang ko takkal koy gàllaaj ba mu ne kaj ñu gas digg kër gi dugal fa ginaar gi ba waa ji téléphoné ne maa ngi ñibbisi gardien bi nee na moom moo sulli ginaar gi rey ko ñu toggal ko waa ji reer mu lekk ko kooku bu ñëwee luñ ko wax luñ ko def loo mu def ko kii moom dañ ko ne dafa ñëw ci njabarkat bi ne ko alal laa bëgg mu ne ko mën naa ko waaye boo dee da ngay dem safara mu ne ko amul problème amul problème tey foofu lañ dëkk alal rek alal di daw boo dee da ngay dem safara mu ne waaw dama nga indi ginaar gu ñuul mu indi ñu sang ginaar gi takk koy gàllaaj ba mu fees mu ne ko boyalal matt yi waa ji boyal ba safara si kenn xamul nu mu toll mu ne ko dugal ko ci biir ginaar gi dund ñii ay xolu muus lañ leen di laaj ñii ay xaj bu ñuul ñii ñii ñii ñii ku nekk fi mu nekk nii gisatoo fi benn muus muus yëpp jeex nañ lu tax ndax njabar mbokk yi dooful imaan moo waral loolu ñaareel bi mooy kasratul wasail al muina ala intisaari sihr ay jumtukaay yu tasaaroo pour tas njabar téléphone yi whatsapp facebook youtube internet bi télé yi rajo yi rajo boo gis ci sénégal am na njabarkat bu fa toog di njabar gaa yi di woo di seetlu télé boo fa gis am na njabarkat xoolal ndaw sii rek barki démb la fi ñëw tey mu ngi yor ay oto ay tabax yoo xam ne kenn xamul nu mu tool di fen di njabar guddeeg bëccëg te chaque jour mu fen fen wu ne weng te nit ñi duñ deltu ginnaaw bu ñu xëy rang këram daa juum tey rek waaye mën na mën na mën na mën na mën na laa yaalamul xayba man fi samawati wal ard illa allah kenn xamul suba luy xew yàlla rek moo ko xam wa ma yashurun ayaana yubu asuun kenn ci ñun xamul kañ la dee kañ la dekki dafa am loo xam ne mbiru yàlla la alimul xaybi wa shahaada yàlla xam li feeñ xam luy nëbb ku bëgg dara demal nga ñaan yàlla demal nga julli nga ñaan yàlla yàlla am na malaaka yoo xam ne dañoo tasaaroo ci mbedd yi di déglu ku ne yaa rab yaa rab yaa rab ñu ne la laajal ñu may la lu fi jar bokkaale lu fi jar xërëm xërëm doomu aadama yi ñii dof ñii dee nga xërëm koo xam ne dana nekkoon ci liggéeyam yor teraangaam topp ndeyam ak baayam di leen dimbali nga xërëm ko léegi mu ñëw ci yow yow rek lay liggéeyal am na ñoo xam ne xërëm yi ñu yor ci mbedd yi ku ñu nuyu rek ne la jox ma li sa poos nga jox leen lu ko waral mooy jumtukaay yi ñuy tasaaree njabar dafa bëri fu nekk njabarkat yi dañuy toog diw moo def li diw moo def li diw moo def li ñe- beneen ba ca tegu li tax njabar bari mooy kasaratul amrad feebar yu bari comme nit ñi dañoo bëri ay feebar njabarkat yi naan leen mën nañ leen a faj foo gis gaa yi ñu ngi takk ay publicité panneau publicité njabarkat yaa ngi ci télé yi da ngay ci gis koo xam ne sax danaan borom awra bu gàtt su ñëwee ma yokkal ko awra bi li ci gën a doy waa da ngay gis ku ne man mun naa lépp mun naa lépp amoon na ci koo xam ne tableau fii la ko bind ñun ñëpp bu ñuy ñëw jumaa dañuy romb tableau ji tableau tableau bi lan la ci bind kaafiru diin kaafiru diin mooy lan ci arab yéen ñi jàng arab lan mooy kaafiru diin mooy ku gëmul diine ku weddi diine ah ku ne man damaa weddi diine nga xëy dem ne ko kaay xoolal ma sama mbir beneen ba ca tegu mooy qillatu uqubaat mooy njabarkat yooyu amuñu benn loi bu leen tiim di leen dentuloo ginnaaw publicité yooyu ñuy def rang boobu nit ñi rang leen amuñu benn nguur gu leen di dentuloo ginnaaw parce que nguur gi day njabarlu ñi jiite diine ji dañuy njabar koo fi gis ci sunu kilifa diine yi ñi ci ëpp ci ñoom am nañu ay pantere yoo xam ne ay njabarkat ñoo fa nekk di leen njabaral ñu ëpp ci ñoom ay njabarkat ñoo dëkk ci seen kër yi di leen njabaral ñu njabar doomu aadama yëpp ñu topp nit ñi nii kenn xamul fu ñu leen jëmee lii mooy sabab xale yi ñuy sàcc beneen bi gën a doy waar mooy télévision yi film film micro yi ñuy dawal day am film magi am film njabar xale yi di ko seetaan magicien bi bi mu génnee njabarkat bi bi mu génnee xale yi di seetaan loolu xale yooyu dañuy gëm njabar ku màggi njabar yi pourtant ñun duñ ko bàyyi xel genn wàll gi yëpp sunu doom yi dañuy seetaan filmu njabar yi ci télé yi fan lañ koy jaareel filmu Mickey yi te xam ngeen ne Mickey waa jooju ab franc-maçon bu mag la moom moo yor filmu Mickey yi moom lañ ko tuddee sax te pourtant nit ñi bàyyiwuñu xel ne moom waa jooju li mu defar ci ay filmu Mickey yëpp day détruire l'islam nga gis koo xam ne uniquement dafa jëndal doomam télé pour xale bi di seetaan film Mickey yooyu bu xale bi màggee ci loolu lu muy nekk Mickey comme Mickey yooyu mu dessiné ñaareel bi li tax xale yooyu ñu leen di sàcc mooy hubbul jaa mooy bëgg daraja wa riyaasa ak ngiit wa suhra ak siiw li tax ñuy sàcc xale yi ñu leen di sàcc ak ñu leen di sàcculu bëgg jiitee tax bëgg darajaa tax bëgg siiwa tax moo tax ñuy sàcc xale yi di la sacrifice yi ci ñoom soo ma indilee deretu ku am at ñetti at nga indil ma suufu jàkka nga indil ma suufu jumaa nga indil ma suufu estaat am na lu ma la ciy defal boo ko sangoo ni nit ñi màbbee jëm ci estaat yeeg jàkka yeeg marché yi noonu la ñuy màbbee di ñëw ci yow nga ñële ñu laaj leen ay resi xaj soo bëggee doomu aadama yi topp la ni xaj di toppee boroomam indil res bi nangam nga ciy def nangam nga sangu ko guddi sangam soo bëggee nangam ñu ne la néew bu dee guddi ajjuma demal nga sulli ko wala nga am ci mbub mi dara ah ñan la bu ñu kenn sonal ñi sàcc xale yi xam nañ leen ñi sulu néew yi xam nañ leen waa ji ci armée li Pikine bañ ko jàppee dana ñi ma yónni du ma leen wax bu yeboo ngeen rey ma ci kaso bi kon am na ñu ko yónni fii lañ ñu wax ne am na benn xew-xew diine buy xew kilifa gi day toog ci jalu ceeb bi ñu sang ko ci ay saafara bu paree ñu jël ceeb bi def ci mbana yi su yekkee ñu jox nit ñi ñu lekk. voilà kon li tax ñi sàcc xale yi nit ñi xam nañ ko mooy lan bëgg njiit bëgg siiw bëgg daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne. awalu ma usiya allah tabaraka wa taala bi sitt xisaal juróom benni bàkkaar yi mooy bàkkaar yi nga xam ne moom la njëkk a mooy yàlla ci kaw suuf si ba ca jiitu mooy hubbu dunia bëgg àdduna ñii di rey nit ñi ñii di def ay sacrifice di dagg ay loxo démb maa ngi doon def benn émission RDV waa ji ki ma doon laaj question yi may tontu mu ne benn bis dafa am benn waaye bu génn ci télé bi di wax yëkkati loxo bi nii loxo bi dafa am juróom benni baaraam xam nga loolu da daan am da nga daan gis da nga daan gis ci dëkk bi nit ko am juróom benni baaraam baaraam bu tuuti bu ndaw fii lay nekk ci suuf kañ ngeen ko gëj a gis nee na waa ji def émission bi bi muy wax di taalal loxo bi rek télé bi daal di génne juróom benni baaraam yi ci loxo bi nee na mu pare émission bi rek am ku ko woo téléphone ne ko waaw yow bi ngay wax sànq damaa gis sa loxo bi juróom benn baaraam la mu ne waaw mu ne dooma jaay baaraam bu ndaw bi dooma jaay baaraam bu ndaw bi ah suñ ko jaay lu mu koy doyee ah problème lii mooy wax bi da koy njabari ji yenn saa yi nga gis kilifa goo xam ne yaram bi loxo yi am na benn baaraam bu manqué tànk yi am na benn baaraam bu manqué ana baaraamam boobu lii mooy mbir bëgg adduna am na jigéen ñoo xam ne ay gàllaaj lañ takk ay wee da ngay dégg ñu ne ndaw si dafa am wee wee boobu xam nga ñaata nit la war a rey pour am alal am na ci ñoo xam ne sax bu ñu déggee seen mbokk am na ci doom ci maternité bi buñ koy seeti dañuy tekki téere bi teg ko ci buntu hôpital bi doog a dugg ndax téere bu duggee ci hôpital bi ñëpp dee liir yu judd yëppay dee yenn saa yi nga gis ci koñ liir buy caddi caddi ñu ne la demal ci meer diw am na téere bi bu la ko abalee nga def ko ci ndox naanal ci xale bi sang ko ci loolu yëpp mu ngi ci biir dëkk bi njabar gu dul jeex boo yeewoo fajar topp tali bi nga fekk carrefour yi gaa yi jël ci ay nen jël ci ay guro jël ci ay sondel nga fekk nga fekk nga fekk boo demee buy géej sa da ngay est ce que ñi ay jullit lañ nga nekk njabar ngay njabar ba pare wala nga nekk njabarkat wala ñu lay njabaral ba pare boo xëyee buñ ne àjjuma jot na nga gàddu sa sijaada jëm jumaa fekk yow am njabarkat nga wala yow da ngay njabar guddeeg bëccëg yonent bi nee na génn nga ci lislaam ab yéeféer bu ñuul kukk nga soo jullee yàlla du ko gël parce que xam ngeen ci lislaam njabarkat yonent bi neen dañ ko war a rey haddu saahir a sayf ku nekk ci lislaam ñu war ko rey lu muy julli bëgg àdduna moo tax nit ñi yonent bi nee na bàkkaar boobu mooy hubbu dunya ñaareel hubbu riyaasa bëgg njiit waaw bëgg njiit xoolal tey ñii xëccoo réew meeg ñii xëccoo place yeeg ñii bëgg njiit yépp dañuy xërëm looloo tax sax kuñ ci fal fenn balaa ngay dem da nga naan non non nañ dajji karo ya nañu changé meuble yi nañu changé peinture bi ndax wóorul chaque jour nga dégg ku ñu fal au lieu mu dem ca suba sa fañ ko fal déedéet danaan bañ changé la fa ne ndax wóorul de waa ji am na lu mu ca defoon moo tax fan la ñuy demee bàcc waxuma sax foofu imaam yi sax dañuy xërëmaate da ngay gis imaam boo xam ne fa muy taxaw da kaa gas miine ko ba mu ne kaj ku fi taxaw dee wallahi da ngay dégg imaam boo xam ne bu ngeen xamoon li ma def ba falu di ngeen ma moytu xanaa yàlla falu la waaw léegi ñun fan lañ jëm ñëpp di njabar ndax ndan bëgg njiit bëgg daraja bëgg alal hubu riyaasa hubu taam hubu nisaa hubu nawm hubu raaxa fan lañ jëm yeneen bi doon na wax ne mooy tunde leen bëgg njiit du leen jëriñ lu dul alak leen aqulu qawli hadha wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم بوكي نيتيلو تومب ci li tax njabar tasaaro ak njabarkat mooy hubbul maal bëgg alal bëgg alal naa am alal rek nu ma def pour am alal baax na na alal ji bëri rek wa tuhibbuuna almaala hubban jamma wa innahu li hubbil xayr la shadid zuyina linnaas hubbu sahawaat min annisa ba aya bi jeex والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام إلى آخر آية bëgg alal doomu aadama alal ju bari rek wala bàmmeel bu sori ñaata yoon ngeen di dégg lool barsa wala barzaq ñaata yoon ngeen di dégg lool xale yi tey di jël gaal yi jëm géej lu ko waral ndax bëgg mokkal alxuraan la ñii di jël gaal yi laa wax jëm géej bëgg a mokkal alxuraan la bëgg a xam diine la bëgg a xam yàlla bëgg a xam yonent bi kan la lan la alal tey doomu aadama yi toll nañ ci bëgg alal noo def luñ la laaj ci sa yaram luñ la laaj ci doomu aadama luñ la laaj ci néew nga dem indi jikko ndax lan naa am alal na alal ji bari alal joo xam ne yonent bi nee na lan tazuula qadama abdin yowma alqiyama hatta tusal an arbaa xisaal an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an ilmihi maada amila bi wa an maalihi min ayna axadahu wa fima anfaqa alal joo xam ne danañ la laaj foo ko jële ak foo ko dugal foo ko jële nga tontu ba mu jeex ñu ne après léegi nag ba nga ko amee foofu ba pare foo ko dugal kan moo lay laaj yàlla junni boo am fistine par fistine la ñuy laaj par fistine ba mu jeex tak foo ko jëlee soo paree ñu ne la foo ko def nga dem di ko jëlee ci ay sacrifice ay njabar ah ay xërëm ay doomu aadama ñu topp la jël seen alal di la ko jox nga xërëm ay nit nga xërëm ay rabu àll xërëm ay nit ñu dee nga sulli ji ay néew jël ay xale di leen rey ndax am alal ta la nangam lañ ma laaj benn waay dañ ko laaj muus muus mu ñuul ka ko laaj ma ngi ca àll ba mu ñëw fii di rëbb ba am muus fay ay nit ñu dal ko muus mu ñuul mu dugal ko ci saak dugg sek place jëm dëkk ba yëf yi di kurkuri ci biir oto bi fi mu toog ci wetam la ko teg yëf yaa ngi yëngu muus la ba caag rek benn xale bu jigéen bu mu dendal daan ne yuuxu daan ne way kii daa sàcc xale sëfër bi droite ana xale bi mu ne mu ngi ci saak bi ndax ndaw si dafa tiit gis na ko muus maa ngi kurkuri Dakar ba Thiès mu ngi ko mu ngi ko xoj mu ngi ko téye ci droite xool gis muus la ñu ne ko yow foo jëmee muus mi mu ne non damay toxu te bëgguma ko faa bàyyi day wéet damay toxu te bëgguma ko faa bàyyi day wéet moo tax ma bëgg koo yóbbaale ñooñu daal di takkaat saag bi jox ko muus mi saag bi mu teg ko noonu di di naj rek affaire yi di kër këri ba mu yóbbul ko waa ji ndeke lan lañ koy doyee waa ji da ko ne dama la ci defal gàllaaj goo xam ne moo ngi tudd nippi nir ki xam ngeen ko suñ la ko defalee ba pare pour nga xam ne jàpp na seetu ngay xool seetu suñ indee seetu nga xool gisoo sa bopp nangu na yi teg seetu nii nga taxaw ci kaw ba ci suuf doo gis sa bopp ñu ne la départal baax na allahu akbar foo koy jële bopp mus ngay indi ji fuñ jëm ndax bëgg alalu àdduna ñeenteel bi mooy li yëpp lu ko waral mooy al bu'du ani tawhid tawhid lañ amul Sénégal dañ naan quatre vingt quinze pour cent musulman quatre vingt quinze pour cent bokkaale kat bokkaale kese waaw bokkaale li waral li yëpp mooy ñàkk a tawhid ñàkk a am yàlla nit bu amul yàlla doo am dara loolu la wax defal da nga koy def parce que amoo yàlla xamoo yàlla. moo tax ñi am yàlla pertuñu waaye ko amul yàlla amoo dara day gis benn milliardaire nga fekk ko ci sëlëbe yoon mu taxaw di sangu ak million yooyu yëpp nga xam ne kii kay amul dara parce que am dara mooy nga am xel mu dal yaqiin ci sa borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu li ngay def yëpp nga teg ko ci lu leer sooy dox sa xel a ngi dal booy nelaw sa xel a ngi dal amirul muminin omar ibnul xataab ba man duub ruum jógee ruum ñëw di seet si omar mu ñëw ñu ne jaar na mbedd mi mu tourné ñu ne ko jaar na mbedd mi mu tourné ñu ne ko léegi la jóge ci marché bi romb na fee mu ñëw fekk omar ci suufu garab mu njaganaayoo ay dàllam di nelaw mu ne ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta wa adalta wa aminta wa nimta bi la yàlla joxe nga jiite jaam ñi atte nga leen ci dëgg ba ngay attu maane maandu nga ba nga maandoo nga am kóolute ba nga amee kóolute nga nelaw kan ci ñun tey su même suñu kilifa diine yi kan ci ñun moo ñemee ñëw ba ci mbedd mi tëdd nelaw waxuma kilifa adduna yi diine ji laa wax kan ñu moo ñemee ñëw tey ci stade bi lal si jaada bi tëdd nelaw c'est ça Omar loolu la defoon moo tax waa ji ñëw fekk mu tëdd président de la république bu dem ba ci suufu garab dox ba sonn njaganaayoo ay daalam tëdd di nelaw fan lañ koy amatee ci lislaam mbokk yi al buudu ani tawxid nit ñi dañu war a am tawxid kennal yàlla tabaraka wa taala pas-pas yi ne kenn loo am mu nekk yàlla loo ñàkk mu nekk yàlla nit day am yàlla looy perte bu mu nekk yàlla soo pertee yàlla amatoo dara moo tax boo amul tawhid wallahi te jeex na lu la neex nag amal boo amul tawhid doo dara abdullah ibnu omar ba mu nekkee ca àll ba gis sàmmkat bi sàmmkat bi di sàmm mu ne xaar leen ñu xool waa ji mu ñëw ne ko ñun de dañoo génnoon ne ko waaw mu ne ko waaye nag waxtu yi dañoo xiif ñu bëggoon gàtt yi nga yor xar yi nga yor nga jaay ñu ci moom ma ko moomoo ko mu ne ko déedéet ku ko moom mu ne ko dañ may sàmmloo mu ne teg ñu coo jaay benn boo demee nga ni boroom tilli yi ñoo ko fàdd tilli yi ñoo fàdd xarma sàmmkat bi ne abdullah ibn omar ayna allah ana yàlla ayna allah allahu akbar loolu mooy tawxid ana yàlla abdullah ibn omar tee sikkim bi di yuuxu ci àll bi di bërëngu naan qaala ra'i ayna allah sàmmkat bi nee na ana yàlla ñun tawxid lañ amul sénégal moo tax bokkaale gi bëri ndombo yi weñ yi xaaw yi pettaaw yi ndox yi ñuy sotti paftan yi ñuy dëgg lu kenn xamul ngay gis ndax bokkaale gu metti ndax nit ñi xamuñu yàlla looloo tax ngay njabar looloo tax soo feebaree njabar soo bëggee alal njabar loo bëgg boo bëggee nekk njiit nga njabar soo bëggee loo bëgg rek foog nga njabar yi foog nga seeti njabarkat yi juróomeel tomb mooy ihmaalul awliya bokk na ci li ñuy sàcc xale yi mooy ay parents yu néglige ay way jur yoo xam ne taluñu seeni doom loolu moo nekk ci dëkk bi xale yaa ngi lambar lambar yi ci mbedd yi guddeeg bëccëg da ngay dox ba deux heures du matin dajak xale ñu yónni ko ci bitig bi kenn ci ñun talul doomam xale boo xam ne day jàngi di jéggit autoroute nga gis ñu bàyyi ko mu dem cinq ans nga gis ko muy jéggil boppam tali bi kenn du ko yóbbu ba mu yegg kenn du ko jëli kenn xamul fu mu yendu Sénégal daal boo ko gisee kuy laaj ca doomam lekk a jot lekk a jot ana diw moom ñu ngi añ bàyyi ko di pare nañ aca dalul kennal kër gi boo fi nekkee kenn du dégg léeg-léeg maam ay parents d'élèves yu ñëw école ba oustaz yéen lu tax du ngeen jàng dimanche ma ne eh, dimbali ñu lu tax lu tax du ngeen jàng dimanche ma ne lu tax ñu jàng dimanche da ngeen war a jàng dimanche ndax ñu noppalu ma ne ah ñun ñu jàngale xanaa dañoo bëgg a dee du noppalu ah parents yu talul seen bopp taluñu seen i doom xale yaa ngi ci mbedd yi di lambar lambari xale bu ndaw bu tuuti ñan la ñuy sàcc ñaataat la ñuy sàcc ni instant yi sept ans sept ans nga defar war nañu ko bàyyi ak boppam bañ koy sàcc nga gis xale boo xam ne mën na jógee Pikine ba Géejawaay di dox ak tànkam kooku bu dajeeg nit ci mbedd yi mu yóbbu ko nit ñi dañoo war a am vigilance seen doom yi doom nawle la doom dañ koy yar dañ koy toppatoo dañ koy encadré li tax léegi ñuy fëkk xale yi lu tax ñu leen di dugal ci ay pas-pas yu kenn xamul lu tax ñu leen di bàyyiloo julli lu tax ñu leen di bàyyiloo wor lu tax ñu def leen ay fecckat lu tax ñu def leen c'est parce que nit xale yi dara nekkul ci ñoom ay saaku yu dox kese la ay saaku yu dox kese la lu ko waral nag mooy ay parents yoo xam ne taluñu seen bopp benn borom xam-xam nee na ñu bëri ci nit ñi dañoo rëcc juddu heure bi ñu waroon juddu moo jotut xaaruñu ko fa dañoo rëcc waaw bu doon kër gu ñu leen dugal la ñu ne dañoo tëb miir ñoom ñëpp génn te seen heure u génn jotu dañoo rëcc juddu loolu mooy dëgg dangay gis 14 ans bu am doom ngay jooy noppeeguñ gis benn 12 ans bu am doom ki am 12 ans ñu war ko yar mu am doom ki ko war a yar léegi ñaata nit lay yar ñaari nit mu ngi doon yar kii pareegul keneen na pucc muy wax keneen na pucc day découragé danaa xaaral ma jóg xëy ñii bu ma leen toppee du ma du ma xëy day jóg bàyyi leen foofu ci kër gi léegi nag ñooñu nekk ci mbedd mi di rajaxe di yàq nekk ay agresseur nekk ay gangster yoo xam ne ku wax ñu génne arme c'est ça loolu mooy wax ji tomb bu mujj bu ñuy jeexalee mbokk yi mooy ihmalul hukuma mooy nguur gu négligé nguur gu yaccaaral nguur goo xam ne du jël benn mesure ci dara nguur goo xam ne sécurité amu fi loolu mooy wax bi lii moo tax juróom juróom benn ponk yi lii moo tax ñuy sàcc xale yi lii lañ leen di doyee yal na nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal na nu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko incha allah mbokk yi bu ñu jullee ba pare suñu carte daara ja moo ngi noonu ñu indiwaat ci mbokk yi yàlla dimbali nañu waxtu wii ñu toll bañ ko commencé ak léegi yàggut pour bëgg a jënd daara ji yàlla dimbali nañu démb am nañ juróom benn million kon buñ ko continuer nii incha allah balaa at bi jeex yàlla mun nañu dimbali li ñuy jaayee kër gi nekk suñu loxo te lépp nag léegi ci yéen la jóge yéen yal na yàlla fay leen ñu ngi leen di ñaanal ñaan bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ñaanal jullit ñi mooy barakallahu lakum fi ma anfaqtum wa fi ma amsaktum bu ñu jullee ba pare incha allah mbokk yaa ngi yor carte yi lu ci waay def yal na ko yàlla fay jazakumullah xeyran qumu ila salatikum yarhamukumullah